lolo waral seen émission bi di waajal gam génn dem seeti ay nit dalal len pour naka lañuy ñuy gam suñu waxé gam nak xel yëpp danañ daj Sénégal waye suñu waxé Sénégal xel yëpp danañ daj Kaolack waye nak suñu waxé Kaolack xel yi daj lew nañu seen kon tay ñu ngi bir lew nañu seen fexe fa dem xol ñom naka lañuy ñuy gam gi waye dalal ko xamné borom xam-xam la dalal ko xamné ne ma sha allah ci hadra bi zakir la waye dalal ko xamné ne tamit su waxé rek nga xamné limi wax xamnako moo tax tey ñu ñëw ba biir ñeseen dalal kenn koo xam ne mu ngi ci pay bi incha allah suñ kanam tuuti da ngeen ko gis te da ngeen xam kiñ dalal kuñ war a dalal la waaye ñu ñëw nag ngir waxtaanee lan waxtaanee gàmmu ak maam xalifa waaye nag incha allah duñ ci guddal dañ koy bàyyi rek moom su présenté woo ba pare ñu dugg ci waxtaan bi kon nga xam ne carrément incha allah seen émission waajal gàmmu mu ngi tey biir lew nañu seen war a dalal ndaanaan war a dalal boroom xam-xam war a dalal koo xam ne saa yu waxee nit ñi bàyyi ko xel kon kooku mooy kan mooy maam si Diagne gën koo xam ci zakirul lew nañu seen di zikarkat waaye tey nag dañoo jël yëre zikar bi tegee ko le jël waxtaan ak moom ndax boroom xam-xam la ñu bari dañoo jàpp ne zikar rek la man waaye mën na leneen lu dul zikar moo tax tey ñu indi leen facette boobu dalal ko ngir waxtaanee moom ci waajal gàmmu maam Saïd ñu ngi lay nuyu di la ziar fii ci plateau Shamsu TV. waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billahi min alcheytaani rajim bismillahi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 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي جللي جنا بني سنتي يالا جلو تي نتي صلى الله عليه وسلم نيغي زيار فتبارك الله كيب كو خامي ياغي باي خيل ايميسون ماك بي فتبارك الله تي تلفزيون بي nga xamni ni moy samsu tv nga xamni ni فتبارك الله ñepp koy sétane ñepp koy baye xel ci liggéeyam bu am solo way liggéey bi nga xamni ni rafet non lol ci kër Alhaji Abdoulaye tabaarakallaahu DG bi di Cheikh Omar fa tabaarakallaahu borom ndigal bu ñu ko ziyaara rek fa tabaarakallaahu day jël nuyoo bi rek séddale ñu ko ci waa kër gi yëpp macha allah rabbi caméraman yeeg képp koo xam ne ni moo nekk ci wàllu technicien yi ñoom ñëpp rek ñu ngi nuyu baax a baax fa tabaarakallaahu di daw lu baree bari di nuyu sunu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane xalifa nga xam ni moo fi toog toogaayu maam xalifa Niass bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañ waa xadara leew na Niassène bi yëpp rek mu jël nuyoo bi joxal ñu ki nga xam ne ni mooy imaamu ratib fa tabarakallahu di Mouhamad Damra nga xam ne fa tabarakallahu moom la maam Khalifa waxoon ne ah xam-xamam bi de dana tasaaroo fii ci àddina ba ñëpp xam ko ci fasaa ak ci domaine bu mu bu mu di nuyu tamit ki nga xam ne nii moom mooy naibam di Cheikh Mouhamad Ibrahim Niass nga xam ne nii ñëpp ko xam nekk jàmbaaru xadara bi nekk jàmbaaru kër gi di ko ziare bu baax a baax baax baax di daw lu bari di nuyu porte parole bi di Cheikh Ahmed Babacar Niass nga xam ne nii mooy naatiqul xadara buñ ko nuyoo rek mu yóbbaale bépp nuyoo boo xam ne nii rek wala bépp képp koo xam ne ta fa tabaarakallaahu mu ngi ci xadara bi fa tabaarakallaahu Cheikh Omar ah ñëw nga ci lu am solo nga xam ne mooy waajtaayu gàmmu waajtaayu gàmmu nag buñ ko waxee ci diggante eh, yonent bi ak maam Khalifa moom facette bi mu leen koy defee loolu dañ ci sawar wax fa laaw kon dañ doon nuyoo rek bu ko defee bu kàddu gi ñëwaatee rek incha allah rabbi ñu daal di continuer comme si kem suñu xam-xam kon borom digal lii daal moo doon nuyoo yi incha allahu rabbi macha allah yéen ko déggandoo ci nuyoo bu matale boobu xam naa dañuy jël nuyoom rek sof ko ci suñ nuyoo bi mujj matal mujj waxal ñu ko mboolem koo xam ne rek yaa ngi seetaan waaye mboolem xalif généraux yi nekk ci Sénégal di wax ne alhamdulilah santaat yàlla bu baax su ngeen déggee nuyoo bi ngeen xam ne incha allah suñ duggee ci thème bi ngeen xam ne carrément kii wax xam na li duñ sori xam naa dañuy dugg ci thème bi direct rek Cheikh Mame Sahed mooy ginnaaw ba nga nuyoo ba pare tey suñ ne gàmmu fii ci Sénégal xel yëpp danañ daj lew nañu seen waaye mu nekk loo xam ne nekkul lu bees lu yàgg la fi ca jamonoy maamalaaji ba léegi waaye nag tey dañoo bëggoon a xam ndax léeg-léeg nga dégg ci nit ñi ñoo xam ne dañ naan la gàmmu bidaa la wala bidaa yonent bi def na ko defu ko tey loolu noonu tey soo ñu soon leeralal maanaam lan nga ñuy wax ndax gàmmu ñu ngi koy def ñii naan bidaa la ñii naan du bidaa tey soo doon leeralal ndax bidaa la wala du bidaa tey loo ñuy wax ak yan texte nga ñu mën a indil yoo xam ne tey ñun dinañ mën a wane ne ñun dañoo war a. allah euh, Cheikh Omar laaj nga loo xam ne nii dama naan yomb na lool nu mu yombee tabaarakallahu lenn rek la mooy tabaarakallahu ni mu yombee mooy bu njëkk ba gars yi ni ñu doon gàmmoo dafa am facette bu ñu doon gàmmoo ndax bu njëkk ba mag ñi wax nañ ne nu ñu doon gàmmoo mooy dañ doon dajaloo rek daal di fecci tabaarakallaahu ñi naan sàngara naan seeni sàngara euh, waaw ba bët set waaw ñu naan ñu naan euh, gàmmoo gàmmoo gàmmoo gàmmoo neex ko amul nangam doo gàmmu waaw di fecci di tëgg ko fecc ba bët set noonu la ñu koy defee mooy ceddu yi bu njëkk mooy tuubee ni ceddu yi bu njëkk la ñu koy defee lu bari wax nañ ne dañ leen ko def fii ci kawum maama laaj Abdoulaye Niass ba mu déggee loolu ndax njabootam gi dafa am ñenn ñoo xam ne nii ci dëkkandoo ya ci aju dañu jógee fii daal di dem foofu di seetaani li ni mel waaw léegi nag mu ne ah ginnaaw ñii nii lañ koy defee man dina ko indi ci facette boo xam ne nii facette boobu noonu a ah, nit ñi dañ xam ne nii ñii lu ñuy def ñun mën nañ ko defee noo xam ne nii ñëpp dañ xam ni dëppoo na ak sunna mooy nan mooy bu bisu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee maam Alaaji Abdoulaye Niass dara nu woo kaa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara ji tabaarakallaahu ñii dalee eh, bàqara ba téeru suuf ñii dalee téeru suuf ba ba naasi maam ñii daan Mariam Euh, baqara ñi jëlee ñi dalee mariam ba naas yi waaw kaa yëpp kenn du xool téere dalee ko bu ñu reeree ba pare moom la ñuy def ba bët set ba bët setee ñu jàng xatma gi ñu daal di saaro maman laa ji noonu la doon koy defee def na ko ay at yi at yi at yi at yi at yu bari waaye nag comme nii nga xam ne nii noonu lañ koy defee nii jamono jii loolu mën nañu wax ne sunna la lu tax ma ne sunna la mooy yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne moo njëkk màggal boppam ndax heure bu altine jotoon rek daf doon woor moom yontu bi sallallahu alayhi wa sallam saaba yi ne ko ah yaa rasulullah lu tax bis yëpp nekk fi da doo ko woor bu leen di jotee nga woor ko mu ne ana yamu wullitu fii mu ne bis bii nga xam ne nii mooy bisu altine te moom la juddu mooy bis bi man ci laa juddu moo tax heure bu jotee rek man dama koy woor am na saxaaba yoo xam ne daan nañ ko ci toppandoo heure bu leen di jotee rek di bis yonti sallallahu ñu màggali ko bésam boobu noonu kon dèjà yonti moo njëkk màggal boppam kon lu tax yonti bi moo njëkk màggal boppam saxaaba yi màggalee ko ko ñun lu tax yonent sallallahu alayhi wasallam bisu juddum nga xam ne nii fa tabaarakallaahu mooy bisu gàmm gi bu jotee duñ ko màggal yow mawlid bi kon yoon la ci ñun ñu màggal ko te màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi yàlla sama ñu ko njëkk jàngal xam nga màggal yonent bi sallallahu mooy lan mooy julli ci moom rek ndax gàmmu amul lenn lu ñu fi def lu du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ndax yàlla sama ñu ko digal moo ne man julli naa ci yonent bi sallallahu alayhi kon yéen sahaaba yi julli leen ci képp koo xam ne ni gëm na la julli ci inna وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باسكو نك يالا واخو مستو واخنا جولينا سي لين يالا واخنا جولينا سان بوب واي جولينا سي يونتي بي داخ يونتي بي نا خامنا يونتي بي موي مبير مي واو يالا خامنا يونتي بي موي مبير مي موتاخ موني من يونتي من يالا جولينا سي يونتي بي صحابه يي تاميت جولي نانتي سي fa tabaarakallaa yonent bi kon nag yéen ñi gëm tamit julli leen ci yoon bi léegi nag julli ci yonent bi nag dafa am nag nu ñu koy defee kenn ku ne ak yow noo sentir jullee ci yonent bi ci facette boo xam ne ne dagan na te ñun facette bu ñu koy defee kenn mëntu indi loo xam ne da ngay taxaw bi daan ndax leen rek la ñuy def mooy rey suñuy nag te wax nañ ne bépp bépp bépp euh, fa tabaarakallaa deret joo xam ne rey nga ko jëmale ko ci lu neex yàlla moo xam na ngaa leexal nit wala leneen ak leneen mu ne deret joo ñëw ne waxuma sax ki ci lekk waaye weñ rek weñ bu dalee ci deret joor rek kim kim dal rek ku yaramam xaraam na safar te xoola tey boo ñëwee ñasen kër alaaji Abdoulaye Ñas da ñaata nag lañ fiy rey ay junnee junnee junnee nag lañ fiy rey bu ko defee nag yooyu yëpp kuñ koy jox waaye gën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñëw ngir xencu ci li nga xam ne ni fa tabaarakallaahu moom mooy moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñëw pour xencu ci yonent bi sallallahu ndax yonent bi nag waxuma mi ngi fépp waxuma nekkul fépp waaye am na fu ñu ko dana yaakaaree waaye nit nag fi nga yaakaaree dara fa nga koy wuti jee moo tax nit ñi nag di ja dajaloo fii ci kër Alaaji Abdoulaye Niass ñii dem fii Tiwaawoon ñii jëm fa tabaarakallaahu demet demet demet demet loolu nag moo wara lool léegi nag te Yonent bi sallallaahu alayhi wax na ci benn xadis ne nga leexal kenn ku xiif moo gën nga tabax junne jumaa waaye te bu du doon sax dañuy màggal Yonent bi sallallaahu alayhi ñëw di nettali xissa Yonent bi sallallaahu alayhi jaar-jaaram ñi rey nag yi rek gën a jugee seen i dëkk ñëw lekk ko rek dem loolu rek dafa doyoon waaye bu ñëwee dañuy lekk ci lekk gi barkelu ci waye du ñem fofu noonu bu guddé dal dina netti lil li nga xamni moy jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye lool de moy sira sira nek lu rek nga netti li jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta nak fa dhakir fa inna zikra tanfaul muminin wa ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi mënuñ ko faté waye dañ koy faté lil nit ñi parce que doom adam leeg mëna nek ci activité yo xamni xélé mëna fatu ba faté ba fàttaliku jaar-jaar yonent bi ta yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo nek bo netti le jaar-jaaram dana tax nit ki nak yu bari bari dootu ci duguti ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi yermande ginnaaw mooy jëmmi yermande kon nag ñiy nettali jaar-jaaram léeg nga dégg ci loo xam ne nii am na lu nekkoon sa yow boo dégloo ñu ni yonent bi sallallahu ku ko mos a tooñ mu jéggal la nga dégg gàmmukat bi ku moo ni Cheikh Omar nettali na ko nettali la ko ci gàmmu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos su jekku du jekkali heure bu jekkoo rek dafay jéggale nga ne ah kon yonent bi sallallahu alayhi mii ginnaaw moom lañu yàlla wax nañu ñi ko kon mosu jekku di jekkale kon man de heure bu ma jekkootee damay jéggale waaye loolu njëriñu taalibi bi ñëw di xenc xenc su gàmmu la beneen bi tamit ñun la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de daan daan na dem di sàmm rien rek pour mën a ñaqam boobu mu mën ci mu mën ci mën ci jariñu mu mën ci di dund maanaam nga xam ne nii doomu aada aadama nekkul koo xam dafa war a yaafus dafa war a dem uti mécc ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon métier yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na commerce na ci histoire am diggante moom ak Khadija ba nga xamee nii ah mën na mbokkam mi ñu bari dem nañ njaayam faatu na papam faatu na demet demet demet demet ah léegi nag ñu boole ko ki nga xam ni mooy Khadijatu mu nekkoon commerçante bi nga xam ne nii daanaka suñu danoon a ëpp xaalis màkk ci la bokk ñu ne ko ci moom ngay dem nag ginnaaw ñëpp ci moom la ñuy dem mu ñuy ràng bagage ñu dem Cham di di di di jaay man di ñëw boo ñëwee nga verse mu jox la sa bénéfice ah dinga dem nag demeet comme histoire boobu may tënk rek yontu bi sallallahu alayhi wasallam jaar foofu ba ni ñu koy fayee xaalis bi ba ni muy ñu koy xadijatu di gaaralee boppam ba ni mu koy takkee nga xam ne ni mbir mi yombut yonent bi sallallahu rek ñëw takk xadijatu mais am na fi mu jaar ba takk xadijatu yooyu yëpp nga xam ne ah kon nit dafa war a dem uti nga deel ñu del nettali na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek am naa ngi mi weer yaayam yaayam faatu am naa ngi mu weer ma papam faatu am naa mu weer maamam faatu nga ne ah, doomu aadama ne natt da koy dal parce que yuntu saa moo gën ñëpp waaye tamit am na natt yu ko gaar mooy ñàkk na way juróom bu góor ñàkk way juróom bu jigéen ñàkk maamam natt yooyu dal ko yëpp waaye teewul loolu lépp mu ngi muñ nekk ci activité ba yàlla may ko li mu may yooyu nga dégg nga ne ah man ñàkk naa sama way jur kon man de war naa muñ parce que yun yuntu salaay sallam moom lañu yàlla royloo te yii yëpp dal na ko waaye teewul muñ na ko kon daal ci tënk lool sëriñ bi mooy daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam histoire am ci gàmmu yëpp mooy ay jaar-jaaram te jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi bu dee nag nettali yonent bi sallallahu alayhi meloon loolu bidaa la kon nag kon nag kon nag man xaw ma yonent bi lan lan kon lu nekk lu nekkul bidaa moom xam kon lan mooy sunna laax moom waaw man du ma wax sax ne gàmmu sunna la waaye farata la wax waaw farata la wax ne sunna la de waaye ba xam ah? waaw parce que am na ñoo xam ne nii gàmmu dañ naan sunna la man du ma wax sunna la man farata la laay wax waaw farata la laay wax kon nag ñiy wax naan gàmmu bidaa la ñoom dañoo xamut wala seen aliwa moo moo moo soriwut ndaxte nag Abdou Wadoud am na lu ma waxoon mooy kalaamul awliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wahum huma man daan loolu rek lay wax ci ñooñu kon daan Cheikh Omar ñi bàyyi xel loolu te diine ji sax man bu du dara sax diine ji yàlla aayuwut sax nga defe nga nga nga defee neneen nga def leneen moom la aaye nga def leneen def loo xam ne bokku ci waaye nga defee neneen kay sëriñ bi loolu xanaa xanaa deru dara nekku ci am na loo xam ne nii saxaaba yi defuñ ko woon amaana seen activité yeggu foon yow yàlla may na la nga def ko waaye ñun lii ñuy def nii saxaaba yi amuñ ko woon toog nii def émission bii nii àdduna bi yëpp di ko seetaan amuñ ko woon xanaa kon lii ñuy def bidaa la ñuy wax ne bidaa la chaque jour ñu ngi toog ci internet bi ah di jàlle ay kii di ko dugal ci resto yi ñi di ko seetaan xanaa loolu bidaa ah ñu ngi dugg seen i oto bu yontu saa sam amoon lu tax utuñ mbaam di ko di ko war comme ko yontu saa sam doon defee nga ci ay caaxaan lañ nekk ginnaaw ñoom gëmuñ loolu ñoom nañ nekk ci luñ gëm bàyyi ñu ñu nekk ci luñ gëm kon daan li ma la mën a wax rek mooy gàmmu daan du du sunna farata la kon képp koo xam ne nii yaa ngi koy màggal jàppal mu a baax man daan li ma gëm mooy eh, yontu salaa salaam màggal farata la kon Cheikh Omar li am ci liñ ciy waxaale rek ba kàddu gi ñëwaat incha allahu rabbi macha allah mbokk yi yéen ko déggandoo wax naa leen du woy kese la man su duggee ci cadre xam-xam nga xam ne jàng na te xam ne li muy jàng euh, ñu am mbégte bu baax a baax ndax ñun sax ñu ngi commencé jàpp xaal ndax man waa ji sooy wax ci moom rek dama du bëgg nga noppi ñu dégg rek ne ci lim leeral ne mooy gàmmu farata la moom waxul ne sax sunna la mais farata la ndax farata gi mu doon mooy borom bi moo ñu ko digal ngir ñu war koo def te yàlla lépp lu mu la digal nga war koo def daf la war nga def ko soo ko defee am ci tiyaab soo ko bàyyi am ci bàkkaar looloy farata yonent bi ñëw saxal ko di ko def saxaaba yi saxal ko di ko def kon su ñëwee ba jamono am ñu taxaw naan ñu bidaalaak du sunna ñooñu suñu deen dégloo mooy def dañoo bëgg a xañ tiyaabo yàlla ji ñu yàlla dig ci gàmma wala bim ñu dig ci euh, màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax soo demee ci xadis euh, ci ci xadis Seydina Omar xaw ma Seydina Aboubacar mu ngi koy wax ne képp koo xam ne jël nga benn dërëm def ko ci bésu yowmul mawlid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su boobaa yàlla dana la jot ca safara ubbi la buntu aljanna yi nga taamu ci bu la neex lii rek doyoon na ñu ne gàmmu war na nañoo daje def ay bernde nga indi ci ay leer am solo xam naa dañu dugg ci deuxième point bi ndax waxtu bi xam naa ne li ñu may ci waxtu bariwul lool waaye nag deuxième point bi mooy tey suñ ne gàmmu ne Kaolack ne lew nañu seen xel yëpp danañ daj maam xalifatul xaaji Muhammad borom mir atu safa moom mi nga xam ne dundam yëpp daf ko jëloon jox ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey soo ñu bëggoon a indil maam xalifa ak gàmmu ak tamit tagg gi mu tagg yonent bi ak cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nam naam Saïd lan nga ñuy wax ci lolu ma sha allah ci deuxième question bi euh mam Khalifa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dafa ko beggona a bëgg bëgg bëgg bëgg ba nga xamni ni bu wéru gamu terison woon moom amati jàmm ñàkk jàmm gi rek wessul xasidam mi nga xamni ni mom la doon tero yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. haadha hilaalun li shahril mawlidil aalami ربيع مولد تاها طيب شيمي والله من إيه، ما يبغى يسوي سامي أخوي سرينبي برينا برينا برينا برينا خسر يا خمني بوه قد يقول رك يا يعني خمني ما مخلف مي كأمون كفل تيون تبي صلى الله عليه وسلم من يون تبي صلى الله عليه وسلم بقاسة وير بقاسة بترسي نحن من ما مخلف من برينا من برينا تي تدي تلال واو دفع مني سما كاري حبي دفع يطور ما ما كوي باكرك ما مخلف بو دعينا تي على جزء نبغي اسمه mam xale ba qasidam qasidam yi ëpp ci lim talif ci yonent bi ci wéru gàmm la ko doon talif parce que bu xassane bu jublu si rek dafa melni ni xaram bi dañ koy ubbi wa fofu mom dégg naa dana o ala ibrahim rek ne ko bul ma soreti bu wér bi téro bul ma soreeti xalima gi indi ko ak ak bi nga tek wa ma hasa hilalun ñaari hasa hilalun way na ko ci way ci tamit bushra lana aw demet demet demet demet wa ma sha allah nga xamni ci nii ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam len rek doyna ci mooy wax ne ne man ba ma juddoo man xalifa ba bisu ngént gi dellu si man ci la ma ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suma turandoo feeñu waaw ba feeñoo Alaaji Abdoulaye Niass na ko man de damaa am doom doom ji nag góor la mu ne ko ma bëggoon la kaa tuddee mu ne ko ane mu ne ko mu ngi nii yonent sallallahu alayhi wa ne ko naawil ni jottali ma ko mu jox ko ko yonent bi sallallahu alayhi jël maam xalifa Niass taf ko ci dënnam waaye doyut mu saxal ko làmmiñam xam nga ne bu doon bu doon ne dañ koo dégg mën nañuy sikk saak waaye gis nga maam Khalifa lu tax mbindam doy waar mu doy waar moom lu mu wax da koo bind li mu koo bind ñu ne ko xalifa waaye yow loolu El Hadj Abdoulaye Niass daf la ko nettilil wala dañ la ko nettilil wala yaa ko mu ne man sama bopp yëg naa ko parce que keroog laa dégg mboolem làng saafaxtuhu bi yamini fii musamarati waaw saafaxtuhu bi yamini saafuxante naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa bi yamini mhm. waaw yombul ah yow ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag saxal gémmiñam xam nga loolu teg ci dëndam yonent bi ti alayhi wa nga xam ne ni moom mooy satudoo bi satudoo bi satudoo bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye satudoo satudoo koy xanaa du may kenn ndox muy manqué yéen it salaasalaam mooy sotti loolu léegi nag moo branché maam xalifa waaye ku mu kooku foog nga am ndox maam xalifa nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam turandoo moo ko moo ko branché moo tax mu ne keroog laa dégg man keroog ba ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam tafee ci dëndam saxal ma laa laa dégg mboolem làng doy na ci rek ma daw foof lu bari am fu ma dem rek ñëwaat mooy dem na fuuta di am ku muy làkk ci waa tukulóor yooyu ne wax leen ne leen maa ne ndox mi fii dana fi yegsi ah kii jottali ne wax ko ci tukulóor ne maam xalifa ne ndox mi yaakaar na ne dana yegg si fii mu ne ko yow waxal li ma la waxloo ndox mi dana yegg si fii mu ne maam xalifa de nee na yaakaar na ne ndox mi dana yegg si fii mu ne waxal li ma la wala ma wax leen ko man langue yëpp laa dégg ji nee na xali xalifatul haaji Muhammad nee na incha allah ndox mi dana ñëw ba fii mu yegg si mu toog nii ndox mi dana ñëw ba fii waaw mooy yoon ne ba ngay dégg fuuta mooy fii gars di béyee seen kiiwu parce que booba dañ soxla ndox ñu ne ko fii de dafa okk amul ndox a ah, maam xalifa ba mu demee fuuta fuuta fuuta dafa mën a examiner ñu ne ko sëriñ bu mos a ñëw fii de am na ñett yoo xam ni dañ la ko laaj boo ko xamee rek ña xam ne yaay waa ji ñu toppal boo boo ko xamu moom jarum nga fi dugg maam xalifa ba mu duggee fuuta benn sëriñ bu sant mbaw ñëw dee ko ko nag ah, a fii de moom tukulóor yi am na lu ñu xewal ñu ne ko la mu ne ko dafa am ñetti question yoo xam ne ku fi dugg dañ la ko laaj mooy Cheikh Oumar Foutiyou Tall sëtam boobu wala doomam boobu xam Mariam Hafsatu Mariam bàmmeelam bi dafa réer xamuñ fu mu ne bëgg nañ ko ko feeñal ku fi dugg sëriñ bu fi dugg bu ñu ko nga daw beneen bi tamit mooy dañoo okk mooy amuñ ndox mooy ilam bi ngay dégg ca Fuuta boo fa demee mu noor ak nawet ñu ngi bay ñu ngi bay ñu ngi bay tool xaale mboq ak ci aju man dem naa ba foofu beneen bi tamit mooy taxas mooy dëkk foo xam ne dañ fa mën a làkkee seen kër yi parce que Fuuta boobu amutoon na da ngay ñëw rek tabax amul luñ seen lu wër seen kër yi mooy dëkk taxas lañu wax ñoom dëkk tu wër ah ba maam Xalifa ñëwee ñu wax ko ko maam Xalifa ne ah bu ci njëkk ban la aaju bi ñu ne ko mooy taxas mu ne leen dee taxas moom da ngeen ko doyal mu ne taxas dootu fi dootu fi dootu fi jug mukk Fuuta ba tey ji ñi ngi tabax ay étage waaye dëgg mëntu ñàkk Fuuta boo fa demee dégg jam la mëntu ñàkk ba tey suba gi nii nii nii boo fa demoon dëgg yi jamono wallaahi la azim dëgg du fa manqué mukk noor ak nawet day dëgg yaa ngi di sax beneen bi tamit mooy iram bi wax naa ko léegi beneen bi nag mooy xas sëtu Mariam mooy sëtu Cheikh Omar bi ñu ne ko dee bàmme bi dafa réer ñu bëggoon ko ko feeñal am xale bi ne ana zikarkat yi ana waa jaaga ñu sant ñang fekk yoon boobu noonu yoon bu riis la woon waa Kucce ci lañ bokkoon waa Sadio waa jaaga waa kër El Hadj Serigne yu bari alaaji mu ndaw bari nañu demone ci ci ci ci yoon bobu ba njëmeeg mu ne acca sega zikr len xaaji shawkha fu aadi ba'd dama chi bi gars yi di zikar rek ñu dem wa mu ne fan la tolo gaay ñu ko ñun kay xamuñ fan la am khalifa taxaw gaay di way gaay di way gaay di way mam khalifa bu doxé ba ne mu taxaw bu doxé ba ne noonu rek taxaw mu ne mu ne mu ne na xass na juk gaay di yëkati xassidi bi mu ne fi ni ni ni ma laal nii mooy fu sampu kiwom bi fi ma laal nii mu ne fi la bobbi bi gas leen gars yi def nii rek jot bopp ci ab te làkku béy la nag làkku bay fu béyee nekk ab làkku béy boo xam bay béyi lañ fa yeew mu ba fër mu bant bi ne fii nii nii fi la bi toll waaw gars yi kii rek gas rek jot jot bopp Xafsatu Mariam ba moo ko feeñal ba tey jii nii nii ñëpp ngi dagg ci tund dem dugg ziar yi maam xalifa moo ko feeñal tukulóor yi nag fa lañ ko gëmee tukulóor moom neextu gëm pour mu gëm nit yombut waaw moo tax ñoom boo duggee fuuta boo ne ñas boo nee ñes rek ñoom seen aduna tukki na ñes rek seen aduna tukki na kon lolu nañ ko bàyyi xel bu baaxa baax kon koku non moy moy moy mam khalifa legi nak ci ci lu gaaw ah yunus sallallahu alayhi wasallam saxal ko la ma mam khalifa mu ne ma way ko ne safaxtuhu bi yemini fi musamaratin wa damani damatan sahab biha biha alali way yemul ci amna benen abiyat bu mu way ne safaxtuhu bi yemini summa xaddasani mu yunus sallallahu alayhi wasallam saxal na ma gémmiñam gi way yamul ci ñu waxtaan xaddasani su ma xaddasani waaye ku nekk bébé di waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw su ma xaddasani waaye wa dama ni damatan saxat bi alali mu ne bépp feebar boo xam ne nii nekkoon na ci man booba la dañ xam lu tax mu wax loolu maanaam feebar bu nar a nekk ci moom parce que boobu mu ngi de bébé tawatagul waaye feebar bu nar a nekk ci moom feebar boobu keroog la dañ moo tax maam Xalifa seetlu nañ ne moom feebaru jamono ji moom mosu koo dal mosu koo dal loolu moom maam Faama moom wax na ko waxaat ko mu ne maam Xalifa mosuma seetlu fu mu demee hôpital waaw feeb benn feebar daal la mos a feebar mooy gars yi laaj ko ne ko ah sa feebar bii moom feebaru lan la mu ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sa feebar bi kon lan moo koy wéral docteur wala la mu ne nii da bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku moom moo xamoon kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotoon du am jàmm mu mu jël xeex xalimam gi di ko tagg hada hilaalun li chahril mawlidi l alami rabiu mawlid taha tayibi chiyami moo tax tamit أنا في موقتي خف بربوع البوالي نيونتبي صلى الله عليه وسلم دان لير جينغا جسني يب مغي بايكو تي يونتبي صلى الله عليه وسلم من نوره كل بدرين ويبدو وشمس زوالي موقم وير بي لمي لير لير لير لير لير راشيون بوبو نكو جيلي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم واي جانت بي لمي لير لير لير لير بو مكو جيلي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم كون نك لولاهما بو تاخت نو يونتبي لولا هوغوك دمير غو تي يونتبي صلى الله عليه lawlaa bu taxutoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lawlaa huma kon maakaana du am kullu kaw ne dara kon dara du am dara du am ginnaaw bu taxutoon yonent bi sallallahu alayhi wa du am waaye kon lu tax euh, euh, borom digal yonent bi sallallahu alayhi wa kon bu bisam jotee duñ ko màggal ginnaaw ñun moo tax moo tax ñu am bu taxutoon yonent bi sallallahu alayhi ñun duñu am waaye bisam bu jotee duñ ko màggal xanaa yow ñu nekkul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen bisi bu jotee danga nga gis ñu leen koy ñu leen ñu koy feetalal benn ñu jàngal leen kaamil ñaanal leen ci yàlla wala ñu am yeneen lu ñu ciy defal bu dee tubaab yi la sax ñu ngi ciy def seen ay soirée anniversaire kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaadul bu bu weeram jotee ñun ñu def ci jàng ci alqurani karim yi ñaanal ci réew mi waaye yéen ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal yàlla xeetali suñu aajo faju ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam aajoom faju na kon nag lawlaahu ma kaana kawnun kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmi mat is kaana aynal kamaal yi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal maam xalifa bu weeru weeru yontu salaa salaam jotoon daan ci fagaru waaye ju ci yem daan na xiir njabootam bu kenn nelaw ñuy def ay salaatul faatih di ko yéene ki nga xam ne mooy yontu salaa salaam lu mu tuut tuut ci jigéen sax lu mu tuut bu weeru yontu salaa salaam jotee daan def douze mille salaatul faatih waaw loolu moom euh, ki yar papa arabi Euh, soxna su maam Alaaji Abdoulaye Niass boobu nga xam ne amutoon soxna su maam xalifa boobu noonu nga xam ne amutoon euh, njaboot euh, tur bi lay fàtte moom moom daan na ko daan na ko daan na ko def daan na wax ne man yontu weeru yontu sallallahu alayhi wasallam bu jublu soon maam xalifa daan na ko wax ne ko Afsatu yaa ngi Afsatu bu ma jub maam Fatou Niang mu ne ko maam Fatou Niang mu ne ko ah sama weeru turandoo bi jublu si na an say an say salaatul faati mu ne ko man de dinaa daan naa ci def fukki junne ak ñaar waaw daan naa ci def fukki junne ak ñaar mën na ko boo ko mënee renforcer renforcer ko ci misaal boo ko mënee yokk yokk ko ginnaaw jigéen ñi ñoom ñoo doon def fukki junne salaatul faati ak ñaar ci weeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam hëddiyal ko yonent bi sallallahu seen mbir baax kon rawatina nag ñun waaw ak jamono bi ñu toll nga xam ne ni jafe-jafe ñun bëri bu ko defee wax naa sànq na la buñ ko defee ko defee defaluñ ko bi suñu bopp dañ koy defal ndax yonent bi li ko pare ndax nag yonent bi dafa wax ci hadis na tawassalu bi jaahi ñu ne ko ah loolu mooy jaya mu ne fa inna jaaya azim da leen di tawassalu sama daraja ñu ne ko ah tawassul sa daraja lu mën a lan lan lay def mu sama daraja dafa màgg fa yàlla ginnaaw sama daraja dafa màgg fa yàlla bu ngeen sama daraja la yéen màgg fa yàlla waaw màgg fa yàlla man hadis boobu laa gisee ne siyaare xabru sax dafa dagan waaw siyaare xabru ñoom ñu ngi koy contrôler dafa dagan ndax yontu saa wax na si xaddis ne dee leen siyaare xabru sur xuburukum xuburuhum waaw kon dee leen ziyaare xabru ndax ziyaare xabru da leen da leen ak ak iman te ñun bu ñu fa demee demuñ tàllal néew yi ne leen may leen ñu nàngam waaye ñu ngi tawasalu ci daraja Alaaji Abdoulaye Niass ndax tawasalu ci daraja Alaaji Abdoulaye Niass mooy tawasalu ci daraja yonent bi ndax nag al ulama warasatul anbiya ñoom nag dañu yaakaar dañuy tàllal suñu loxo yi ne yow yow yàlla maa ngi lay ñaan ci Alaaji Abdoulaye Niass yi Alaaji Abdoulaye Niass képp kuy ziar xaru loolu ngay moo tax ñoom seen xam-xam xam-xam bu néew baaxul Baye Niass daan na wax ne yàlla nañu da lay tax nga waaw kon nag gàmmu daan mu ngi noonu nii maam xalifa nii la doon koy defee daan na ci xiir boppam waaye xiir ci njabootam xiir ci taalibe mi kon daan macha allah mu ngi noonu loolu lañ ci amaat ba beneen question ñëw incha allah rabbi ñes macha allah amati nañ mbégte bu baax ndax wax dëgg yàlla yaa ngi yokk suñu xaal ak suñu cofeel ci yeneen ndax li nga ci wax nii ak maam xalifa dana tax waxuma la ku nekk surtout maam xalifa waaye kuy jullit te bëgg yonent bi rek di nga def yitte ci sa bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndeysaan ku xamul xamoo ndax mag ñi soo gisee li ñu am yëpp wax nga ko ci sa biir wax yonent bi leen ko may ndax maam xalifa tey xasidaam yi soo koy jàng ngay yëg ne dëgg dëgg maam xalifa mii ku xamoon yonent bi la waaye ku bëggoon yonent bi la soo demee ci xif bi rubu wax sax mu ngi koy wax mu ne moom amul xëy amul gont mu sirtu urdi wa unsi li xubbi xayri rijaali moom léppam da koo jëloon jox ko yonent bi moo tax yonent bi delloo ko lépp ba tax tey fu mu toll nii lim bind ci xasiida ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit sax mënu koo takk doy na rek xam siyaam bi ni mu ko leeralee jàngal ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xam ne naar yi sax mënuñ koo leeralee noonu waaye xam naa ne balaa ñuy dugg ci dernière question bi dafa am question boo xam ne dama la koy cabaxal maanaam tey maam seet suñ ko waxoon lan moo ko gën a yéem ci maam xalifa tey ñun xam nañ sa cofeel ci maam xalifa ñun xam nañ loolu ñun moom loolu kenn si kenn ko waaye tey suñu la waxoon tey li la gën a yéem ci maam xalifa ba tax tey yow fuñ tuddee maam xalifa rek nga daanu leer doo ñu tontu balaa ñuy dugg suñu dernière question bi. sànq nii rek maa ngi ci waxtaan sama benn xarit ma ne ko maam xalifa man karaama mi yéemu ma karaama yi muy def ñaanal na kii kii ñëw na jox ko xaalis mu ñaanal ko doom at bi at bi dellu si mu am doom waaye jigéen la am mu ne ko man de sëñ bi doom ji mu ñaanu loon am na de waaye de man góor laa bëggoon te jigéen la mu ne ko yaamatu lu toon lu mu la waxoon nga joxe ci misaal la mu ne ko ñeenti téeméer mu ne ko loo joxoon mu ne ko ñaar mu ne joxoon ñeenti téeméer rek am góor waaye weesoo ba ma joxee ñeenti téeméer rek moom ma def ko góor ci tant leew nañu seen ñu ko fekkee am na ñu ko fekkee ñu ngi dund waa ji mottali beneen ñaar téeméer mu ñu awre gor bi mon lol yemuma benen bi tamine moy mbayan jen, bobu ndugion marché jeun ñew jaar ci ginnaw mam khalifa ba ñewé julli fajar ba paré continuer jël jeun ba jox ko soxnam soxnam togg togg mëntu ñor mu ñew ci mam khalifa ne ko man dé sama soxnam dafa togg togg jeun yi mëntu ñor ta man jaaxal na ma lol mam problème ne ha ah mbayan man dé jeun ñor rek la ci xam mu ne ko ah jeun ji mom jeunu lan la mu ne ko man daan ba mu ndugé marché ci marché Mbambara dëpp naa fekk ngay julli fajar ma ànd ak yow parce que gars yi mag ñi dañoon teel a nduggi marché dañoon teel a dañoon daanaka mën nañu dem marché retourné dooru julli fajar mu ne ko ah jaar naa sa ginnaaw fekk yaa ngi julli fajar ma julli teg jënni ci ginnaaw mu ne ko Modou Mbaye yaa dof man bu may julli sama ginnaaw ba jant bi soow lu ma féetee ginnaaw yaram xaraam na safara wallaay loolu yéemu ma karaama ma la wax nii yëpp dara yéemu ma ci xam nga lu ma yëm ci maam xam maam xalif mooy mbindam xasidam yi xasidam yi rek rek rek wallahi mooma yëm ci maam xalif ndax nu daf maa yéem ni maanaam nu mu jekkoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu jekkoo arabiyatu gi dafa dafa dafa dafa garaaw moo tax man xasahu googu bi waatixil bayaani googu min noori min min bay ni kulli bii di wa suudaani googu dëgg la waaw dëgg la te maam Khalifa Niass dafa am benn mag mu baax mu tudd euh, alaaji Babacar Diané ca Màkk Ndiané dañ faa dem am fa benn daayira mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu alquranu karim nekkee mujisaam bu gën a mag maanaam mujisa boo xam ne ni moom mooy dara daj dëpp mu ne maam xalifa noonu la mbindam nekkee karaamaam bu gën a mag mu ne nit ñi dañ dañ dañ dana xam dañ dana xam euh, karaama yi muy def nii nii rek ñaan mu nangu nangam nangam tawal mu taw mu ne yooyu lañ xam rek waaye nee na mbindam maam xalifa mooy karaama yi dëgg dëgg karaama maam xalifa mu ne nag lu tax maam xalifa ñu baree baree bari duñ ko mën a xam mu ne ma réew mi amatul njàng amatul njàng jàngkat mu ne te te jàngkat moo mën a liir mbindu mbindu nit ki ba pare bëgg ko mu ne nit ñi jàngatuñ nag léegi na pour ñu liir mbindu mam Khalifa ba bëgg ko ci mu ne duñ ko def parce que duñ liir mbind mi mu ne heureusement moo tax maam Khalifa pour ñu xam ko du yomb mu ne te nag waxoon man duñ ma xam fii duñ ma xam fële lañ may xamee kon daan gis nga euh, sëriñ bi maam Khalifa daal lu mu dana yem ci moom même mbindam bu bindee da ngay da nga yaakaar ne kii arab yooyu bind moom sax wax na ko dane man man man Khalifatul Haaji Mouhamadou حاج محمد ياس كار يوم القيامة ينتبي صلى الله عليه وسلم عسى أن أحصى بأجر الخير ممنوني أمنا في موقعنا كار ينتبي صلى الله عليه وسلم بيري بين بوب بين ثوب بين ملان نيوم دون تقل أخو يخ موقم حسن ابن ثابت مني مير بين بوب رك دونغ دونغ دونغ دونغ دونغ مني والله من لكو يخ مني بيري نيار نك من جو حسن جو ما بودي بين بوب دونغ لا حسن نك من نك من لنكو يخ waaw parce que moo moo moo dana xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo dëkkoon ak yonent bi waaye maam xalifa moo dana na xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waaw waaye est ce que du sax waaw est ce que du moom waaw est ce que du moom kon mi ngi noonu comme comme mbindam yaa ngi noonu wax naa la sànq ne la am na fu muy waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moo fi njëkk maanaam mooy muqaddam muqaddam bu ñu ko waxee maanaam moo fi njëkk yonent yëpp donte ne yonent yi ñoo fi jiitu yonent bi mooy foofu muqaddamu fa huwa muqaddamu xaqan fi xalqi duuna jidaali dama ne nag gaynde bu dee dafa njëkk jof si waaye yeneen yeneen yeneen yeneen rab yi duñ duñ jof si te yunt bi sallallahu alayhi wa moom mooy gaynde gi moo tax yàlla nag téye gaynde gi yebal gaa yi ñuy dem ñuy dem ba jeex mu door indi yunt bi sallallahu lool wa sallam loolu mooy fa huwa muqaddamu xaqan moo tax maam xalifa teg ci ne wa inta aqara baaxatan donte sax moom lañ mujj yónni donte dañoo yónni gaa yi ba pare dooro yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee bi sallallahu alayhi wa sallam moomu foofu xam li jamee kon nak ataa bihi laa wala ma tamat bu xóoru yunus sallallahu alayhi sallam fa tabarakallahu atabihi bihi laahu la ma yàlla moko wàcc ba nga xamé ni réer tamat bu khuru dalaali manam tamat bu khuru dalaali moy ba nga xamé ni réer gi bari na ci adina bi ñi di jaamu ay ay xërëm ñi di jaamu safa ñi di jaamu ay ay nagak ya ci aju réer bari mam khalifa neen ataa bihi la ma tamat buhu rudolali muné wak yunus sallallahu alayhi wasallam bu mu ñëwee fa naara subhu hudahu way wala badarul kamal fa subhu hudahu moy fa naara leeral na sallallahu alayhi wasallam subhu hudahu suba si njubam xam nga tam mo indi subhu suba dafa leeram suba dafa leer mu jël njub nag misaalee ko mu suba ndax suba nuy gi dana muy dana leer fa sallallahu alayhi wasallam njubam gi sallallahu alayhi wasallam badru maanaam leeration bi moo gën a leer badrul kamaal yi weer weeru mat maanaam weer bu demee ba am 30 jours ni muy leeree ne yonent sallallahu alayhi wasallam leeram googu moo mujj moo mujj effacé lëndëm yi fi nekkoon yëpp leer gi daal di ñëw remplacé ko ba képp koo xam ne ni nekk na fi fa waxadallaahu xaqan waaw fa waxadallaahu xaqan man kaana fii shirka xaali maanaam fa waxada ñu daal di wéetal nag ñu doon jaamu xërëm ak ñu doon jaamu ndox ñi di jaamu safara yëpp fa waxada mujj wéetal allaahu yàlla waaw mu ñu wétal yalla haqqan té muy dëgg waaye nak ñan ñan ñoo doon ñu ñu mujj di wétal yalla moy man ña nga xamné man nak ci xam-xamu grand-mère wax nañ ne man nga wax man ka nga xamné man ña nga xamné ne l'essentiel dal moy xol li ko fa waxada wétal na allahu yalla haqqan sa dëgg-dëgg kon man ña nga xamné ko wax waaw man ña nga xamné kana nek na xaali ñu aji cher cher moy liñ nekkoon xërëm gu nekkoon di ko jaamu dañ ci dañ ci fédéloon pour nga génne leen ci jaamul loo leen yàlla yombut waaye moo tax mu ne raar yi dañ ci cher fi shirk seen bokkaal yi cher ci dëgg ba pour nga jëlee leen ci loolu ñu nekk indi leen ci lii nii nii nii mooy ci ngëm ngi yombul waaye yonent sallallahu alayhi wasallam leeram nga mujj na effacé ñee lu ñu nekkoon yëpp ñu ma ñoom ñëpp mujj dugg ci eh, diine ji loolu la moo mujj fa asbaha alxaqu yaalu waaye nag sëriñ bi washir ko taxte niaali fa asbaha mujj leer alxaqu dëgg xaqu dëgg leer ba mu leeree nag waaye yemut ci dëgg dëgg gi fa asbaxa leer na xàq dëggu yaaxlu daal di kawe maanaam dëgg mujj kawe waaye wa shirku bokkaale taxte ñaa li nekk ci suufi daal yi ru suufu ndëggu lu mu bëgg wax rek mooy wa zahaqal baatilu innal baatila kaana zahuuqa moom la maam xalifa yi gis nga bu dëgg ñëwee rek fen dafay daal di nëbb lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg gis nga dëgg ak fen fen mën na di jolli rek nga mbir maa ngi nii waaye gis nga dëgg donte sew na day yàgg daal di wanna li nga xam ne mooy fen bi maam xam ne loolu la moo mujj ba leer gi amee yemul ci yonent bi dafa mujj jël nag alxuraan daal di ko sol ñooñu wallaahu ansala nuuran ali daafi silaali sëriñ bi wallaahu yàlla ansala wàcce na annuura alxuraan bul fàtte ne nag alxuraan turam yi ismun min saati alxuraan waaw maanaam alxuraan karim turam bokk na ci nuur bokk na ci turi alxuraan karim mu ne la moo mujj ali daafi zilaali mu jigéen rek lëwal fa tabarakallahu fépp ba lépp daal di leer kon sëriñ bi gis nga bu ko tope du du du du du njeexal te yontu bi sallallahu alayhi wasallam géej goo xam ne nii la laa saaxili la te mag ñi dañ koo xamoon maam xalifa dafa koo xamoon wax naa du ma wax ne dafa niroo la yontu waaye moom mooy yontu bi waaw ndax lu ne am na ñaareel na moom mooy moom mooy ñaareelu bi kon sëriñ bi mi ngi noonu loolu lañ amoon ci luñ ci insha Allah amati nañ mbégte bu baax a baax am kontaan bu baax ci seen émission bi nga xam ne moom lañ tuddee waajal gàmmu tey ñu dalaloon maam Cheikh Dieng dégg ngeen ko ci xam-xam bu sell bi mu waxtaan yokkaat na suñ bëgg-bëgg ak suñ cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa te xam naa ne suñ ko toppoon fii ba suba mën na cee wax te lu mu wax du ci delluwaat nga xam ne kon borom xam-xam la mooy li ma leen wax rek ñu bari léegi léeg dañuy jàpp ne zakirkat la mais nag loolu beleen facette la waaye facette am bii yàgg na ci ndax moo ne nga xam ne eh, sëñ daara day jàngale te ñaareel bi tamit ku xam li muy wax la alhamdulilah santaat yàlla bu baax ñu dégg li mu wax bu baax a baax te nekk lu leer naa ñi di ko ñaanal yàlla yàlla gën koo defal tawféex xëy na suñ caméraman bi mu may wax ne ma liñ ñëw joxoon ci temps bi jeex na waaye du tere suñ question bu mujj rek la ñuy dugal suñ paree nga defaale tàggatoo bi ci 3 minutes wala 2 minutes incha allah question bu mujj bi mooy tey fu mu toll nii wax nga ñu gàmmu farata la dañ ko war a def yàllaa ko njëkk a ñaareel bi tamit maam xalifa wax nga ñu niñ meloon ci gàmm te su gàmm jege si waan ngay gis xaalam day yokk xërtalam yokk lépp loo xam ne bëggoon na ko sax danaan nañ bàyyi ba weeru gàmm ndax cofeel gi mu amoon ci bi nga wax ñu ay mayam yu ko yàlla may ci ay karaamaam yépp mu ngi ko amee woon ci barke yenente bi ak bëgg gi mu bëggoon yenente bi ak tamit xërtal gu mu daan xërtal njaboot gi su gàmmu teroo te yooyu ba léegi soo gisee lew na lew nañu seen looloo fi ne alhamdulilah nga wax ñu tamit li ñu gën li la gën a yéem ci maam xalifa du ay karaamaam mooy mbindam nga jàngal ñu xiif bi rubuux bi nga xam ne euh, képp koo xam ne dégg nga arab soo ko jàngee nga xam ne dëgg-dëgg ki woy lii mooy loolu te moom da doon wax ne ñun ay arab lañ ci làmmiñ waaye nag ku ñu ñëw fekk suñ der bu ñuul bi nga jàpp ne duñu ay arab mais ay arab lañ inna naa arabun dallat fasahatuna inna ilal orbi bil islaami nan tasibu loolu la sëriñ bi wax euh, sama wayjur ba muy muy xasidam bi di wax ñun fu ñu bokk ci ñeseen loolu la ko jeexalee kon ñun ay arab lañ te pour nga xam ndax maam xalifa arab la su waxee nga xam ne arab la ndax ku jàng xasidaam yi xam nga mooy lool waaye tey eh, njëriñ li nga xam ne moom lañ mën a amee ci gàmmu tey soo ñu ko doon wax lan lay doon maanaam ban njëriñ lañ mën a am ci gàmmu su ko defee incha allah mooy suñ question bu mujj ñu tàggatoo eh, ba beleen numéro incha njëriñ li ci mën amee rek mooy nit ki boo ko bëggee da koy topp gàmmu nag wootu ñu ñëw rek ñu wax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga fett su lekk-lekk gi dem nekk ci loo nekkoon. maanaam boo ñëwee gàmm ñu waxal la li nga xam ne nii mooy jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ma la ko waxee woon waaye du da dem rek déglu ko rek toog da nga koy jéem a roy waaw ndax wax naa la ne boo bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy topp koo koo koo bëgg topp ko da ngay topp yonent bi sallallahu alayhi nga topp ko terem nga bàyyi ko boo ko defee da nga am résultat gàmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ kenn bu dee da nga nekkoon koo xam ne da ngay bañ ay jéem la bëgg nit ñi résultat bi mooy loolu dootoo bañati kenn ken nga nekkoon ku soxor bul soxor danga da nekkoon ku nay nga dégg ñu yun saasam dafa tabe woon daaw tee dara moo danoon na fasaa ci kuy fasa moo danoon na labe tabe ci kuy tabe nga da nga nayoon waaye waaye waaye waaye waaye tabel nekk koo xam ne nii da ci caaxaan nga dégg ñu ne yun saasam daawul caaxaan nga xam ne nii fa tabaarakallaahu bépp mbor nag daan na ko daw moom yonent bi salaay salaam nga jéem a daw mbon googu l'essentiel daal loolu njariñ ko ci mën a amee mooy yontu sallallahu alayhi wasallam boo màggalee juddoom résultat yi nga ci jëlee mooy nga nga baax nga baaxee ci lu bon lu nekkoon ci yow dañ lu baax ñëw remplacer ko loolu rek maanaam résultat bi daan loolu la ci tënk bu gàtt gàtt daan lu bon li nga nekkoon daan bàyyi ko nga nekk ci lu baax li nga nekkoon bépp manqué manqué boo xam ne ni leer na ne mu ngi ci yow te nekkul euh, euh, lu doon yontu sallallahu alayhi wasallam di def bàyyi ko lépp yontu saa sana mu ngi koy def nga gis ne mu ngi ci yow dolli ko loolu nag mooy résultat gàmm bu dee na yow ñëw nga gàmm si nga gis ne lépp loo xam ne nii digal nañ la ko ci qualité critères yontu saa sallam bàyyi woo ci dara wala lépp loo xam ne nii digal nañ la ko defoo ko jàpp ne yow sa sa sa sa def gàmm amul benn résultat waaw kon loolu la kon résultat bi daal mooy lépp lu ñuy wax ci yontu saa sallam mu nekk njariñ def ko loolu rek mooy résultat bi man loolu laa ci gis macha allah rabbi kàddu gu mujj gi tamit mooy euh, di sant yàlla baax a baax di am mbégte kontante ndax euh, lii dafa am njariñ ndax di dalal ay nit du ma wax ay borom xam-xam man ndax mu nekk borom xam-xam waaye dal dalal sama zaar nga xam ay jéngumaan leen ñuy jéem a jéngu ci yonent bi sallallahu alayhi di jéem a wax ci moom loolu dafay rafet ndax am na yeneen site yoo xam ne ñu ngi dalal ñeneen ñoo xam ne nii tabaarakallaa ñu ngi wax ci leneen loo xam ne amuloon njariñ benn benn benn yoon askan wi kon tey bu ñu amee site yu mel ni Samsu TV gi nga xam ne ne fa tabaarakallaahu nekk na site bu mag télé bu mag ah di wane njàngale yonent bi waaye di wane yonent bi sallallahu mooy kan kooku dañ dañ ciy sant di ci gërëm bu baax a baax di sant ki nga xam ne moom mooy DG bi muy Cheikh Omar Niass borom ndigal ñaan yàlla yàlla yokk taxawaay bi yëkkati site bi ba mujj nekk télé te incha allahu rabbi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ndax lépp loo xam ne nii lu neex yàlla la loolu bu dëggoo rek loolu dina jëm kanam incha allahu rabbi kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla def fi taw tawfiix yàlla def fi tey si lépp loo xam ne nii njumte la rek ñu ngi siy jégg lu baax suñu euh, gàtt xam-xam ñàkk xamati dara ak ñàkk fasaa waaye lépp loo xam ne nii jub na rek di sawaab ci yàlla la in uridu ila al islaaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu wa ilay unib wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa seen mbokk maam la woon ci waajal gàmmu di amaan mbégte bu baax a baax am kontaante bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yokk xam-xam di te gën ko defal tawfiq di santaat yalla bu baax di len sant yeen ñi nga xam yeen safo di seetaan sen site bi di samsu TV la télévision di savoir li lañ leen indiloon ci sen émission wajal gamu nek suñ premier numéro allah di len wax ngeen xaar ñu ci yeleen numéro ak ci yeleen borom xam-xam xamna naa nag ñeseen duñ fi gëj ndax xamna ne dinañ séti ñeleen ño xam ñu ci biir pays bi waye bu len japp ne fi rek la yem dinañ dem feleen ak feleen mbolim këru diine ji xam ne xam nañ ne yaangi gamu te am nga ay ndaw yo xam ñu ngi tok di waxtaan ci xam-xam bëgg nañ leena dalal ci site bi di len ubbil suñu buntu di leen wax ne képp koo xam ne it bëgg nga ñu invité la ci numéro yooyu ci suuf soo ci contacté di incha allah dana ñëw dalal nga waxtaanal ñu ci gàmm ak njëriñ liñ ci mën a amee ndax liñ bëgg rek mooy ñu fexe ba jullit ñëpp mën a gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man koo roy ndax loolu la ñu yàlla dimbal eh, loolu la ñu yàlla sant te loolu lañu mën a def pour am ngëri njëriñ ci àdduna waaye am njëriñ ci àllaaxira di leen wax beneen yoon incha allah seen mbokk woon Cheikh Omar Niass di amaan bégte bu baax ci nga ne moo nekkoon ci caméraman bi di Abdoul Khadi Diallo waaye tamit ki nga xam ne moo nekk ci réseau bi nekk ki nga xam ne moo initié émission bi di Cheikh Ahmed Tidiane Kobar ak mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey ci site bi di Shamsu TV di amaan mbégte bu baax di santaan maam seet bu baax di ko wax ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla wa ma zalika alallahi bi aziz والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليك رسول الله أشكو بطالتي كذا كرتك بي للذنوب وغفلتي